ñu sant ñëpp gërëm ñëpp mbokk yi balaa ñuy wax ci jublu ci ñaan gi ndax bu ñu xesee ñaan rek fa la yëf yi di yem ndax Cerno Bachiru day faral di wax ne ñaan buñ ko defee ba noppi rawati xatmul Qur'an mu ne bu ca kenn tegati dara moo tax dañu bëgg bu ñu ñaanee ba noppi rek fa la yëf yi di yem moo tax ñu bëgg a jiital yi ñëw jiital yépp nag bokk na ci li ma waxoon képp koo xam ne soppey xadara bii nga di xadara Cheikh Ahmad Tidiane bu amoo kaat fii ma toog di wax képp koo xam ne yaa ngi fii ñëw di fi defee xadaratul juma góor ak jigéen mag ak ndaw waxoon naa ko suñu participation tey lay tàmbali une semaine nit lay diire maanaam bu tàmbalee tey dimanche tey bii ba dimanche tey bi del si ci altine ja lañ koy tëj képp koo xam ne am nga loo ciy joxe muy sa participa maa ngi lay ñaan nga jox ko Atumaan Jool wala Badara Gay walla Ndey Faatu Jonn soxna Caam moo jiite jigéen ñi waaye yaramam moo xaw sutaate mu jox ko Ndey Faatu pour mu wutu ko ci waaye ñoom ñaar laa tànnoon Atumaan Jool numéro téléphone mooy mooy 77 428 87 70 77

77 545 22 29 numéro yii ma joxe nag mooy numéro yi nga xam ne képp koo xam ne am nga loo ciy def ci bokk ci xadara bi maa ngi ñaan docteur yi nga xam ne ñoo may gën di jàppale muy docteur Ousmane Dieng docteur Mor Diakhaté docteur euh, Yacouba Faye docteur Babacar Ndiaye docteur Abdallah Diallo ak docteur euh, Dame Assane Ba ak mboolem docteur yi nga xam ne ñoo may jàppale ci mutuelle de santé bi te bokk ci xadara bi yéen docteur yooyu tamit jàmbaar ngeen yéen a ngi def lu ngeen mën ci corona coronavirus bi waaye yéen da ngeen am participation particulier ci zawiya bi yéen ak docteur Yakhouba fay ak docteur Ousmane yeen nag ñoo ko jiite. ak docteur Mor Diakhaté su ko defee kon yéen ñëpp maa ngi leen di interpeller ngeen def ci seen loxo yéen it ñu dajale ko buñ ko dajalee ba mat Badara gay alxaaji Badara Gaye moo koy jël jox ko alxaaji Souleymane Kane ñépp a xam nañ fii ci géejawaay ak àddina bi sax alxaaji Souleymane kan buñ ko tegee ci loxo mu teg ca lam cay teg incha allahu taala ñu jël ko nag yóbbu ko fañ ko war a yóbbu alaaji sàmba Ba ak soxnaam astu jaxa bi ñoom it ci la ñu bokk su ko defee lii mooy keneen koo xam ne nag ndax Sénégal looy wax am na ku jóg nar leneen keneen ku dem feneen di fa def leneen santuma ko keneen kuy wax leneen santuma ko ko tur yii ma tudd joxe téléphone yi daal ku am looy joxe jox leen ko man sax la may joxe man ñoom laa koy jox man li may joxe ñoom laa koy jox kon nag ku am looy jox jox ko ñii buñ ko dajalee ba mu yemb nag daañ ko yóbbu fañ ko war a yóbbu muy suñ contribution ci mbir mii nga xam ne moo laal Sénégal te laal àddina bi yëpp do su ko suñ doole matee woon ñëppay toog ñu def ko waaye li wolof di wax ne dompat sax ci sot la bokk te ñun ci réew mi lañu bokk kon lu laal réew mi laal nañu moo tax luñ fiy def bëgguñu kenn jiituñu ci su ko defee nag mbokk yi lu mel nii amoon na ci jamono yonent bi te buñ ne yonent bi nañ xam ne ku dul yonent bi yonent bee la gën wala ñu xam ne ku dul yàlla daal ci gàttal ku dul yàlla yonent bee la gën